te li ma wax léegi rek suñ Abdoulaye Sylla bi nga xam ne si mooy moo xam ne mooy fondateur c'est 50 pour cent moom rek moom la réew mi soxla actuellement ni seen i dañoo sonn seen i sonn nañ bëgg nañ liggéey rawat na femmes yi jigéen ñi jigéen ñi suñu yaay suñu yaay suñu rakk yi suñu suñ suñu rakk yi ak suñu mag yi sonn nañ ñi ngi liggéey ñi ngi daj coono yu métti dafa am loo xam ne si nag moom moo leen di dimbali mooy ku leen puus doole mooy ku leen pousse doole ku leen dolli li ko loolu nag moo tax ma ne la Ablaye lee moom rek la réew mi soxla képp koo jug ku jug pour développement képp ku jug pour financement kooku yow la rek la réew mi soxla réew mi da li soxla mooy financement ak développement développement nag li koy li koy li koy indi développement dafa am lu koy jiitu li koy jiitu mooy liggéey liggéey nag dafa am loo dafa am ay ay ay ay méthode dafa am petit à petit am ñoo xam ne si tey jii ni mën nañoo yor métier amuñu matériel parce que dëkk bi métti na dañuy jàng métier duñu am moyen wala dara képp ku jug nag pour dolli moyen yi nga xam ne si jug nañ pour liggéey kooku nag yow yow la réew mi soxla kooku yow rek yaa mën a développé réew mi ndax réew moo gis mu mu liggéey rek moo ko développé te képp ku jug jàppale ñiy liggéey jeunes yuy liggéey ak femmes yi liggéey tey ñaar doo nga fi nekk góor ñi ak jigéen ñi góor ñi ak jigéen ndaw ñi ak mag ñi ndaw ñi ndaw ñi euh, nangu nañoo liggéey jigéen ñi nangu ñoo liggéey mais ñu si bëree bëree bëri seenub liggéey moyen ya muy laaj moo des képp ku jóg nag pour taxaw jàppale leen kooku nag yow rek la réew mi soxla te yow rek yaa yaa yaa yaa jara jàppale ñun kii nu àndal fa wut fa la wut te caaxaanut tey nit la koo xamee ne day liggéey te li muy liggéey booliw ci ay wax te li soxna Bali wax bu ñu fi jógee nañ ko gëstu ji te Abdoulaye Sylla nañ ko gëstu ji ndax ñun la sëñ Abdoulaye waxoon rek mooy dëgg si ñun sëñ Abdou Lahad daane wax ne du ma sant ku ma deful dara Abdoulaye Sylla liggéeyal nanu ci suñ réew mii liggéeyal nu loo xamee ne ñun kenn ku ne bëgg na ko waaye mënulu ko boppam Abdoulaye Sylla defal la ko kon kooku nañ ko sant nañ ko gërëm ci président Abdoulaye Sylla ñun dañ koo suivre euh, topp ko ba xam kan mooy Abdoulaye sillaa waaw ndax boo boo xoolee guddee gi lu ko gën a waral surtout ñun Touba Mbacke gi yéen xaw ma xam ngeen ko xaw ma xamu leen ko waaye Abdoulaye Sylla li muy def fii ci Touba ñun teg nañ ci suñu bët xam nañ ko ñun ñun ñun waa Touba aselem suñu mbedd yee da daan taa bu màggal Touba musaana jub si da daan taa ñu koy tagg ci seen loxo yéen jeunesse bi xam ngeen loolu dañ koo sëkk léegi ba fo ba foo jaar man faa jaar te euh, oto yi Ablaye si la ñoom ñoo ko sëkk yéen leer na leen Ecotra ñoom ñoo ko sëkk kon xam ngeen ne Ablaye si la am na njariñ kon dama bëgg ñu jàppale Ablaye si la def ko candidat présidentiel yi ñëw waaw moom la ñu bëgg te xam ne Abdoulaye Sylla mii jàmbaar la jàmbaar la te moom moo war a gañe Touba Mbacké gii moom moo war a nekk candidat boo xam ne mooy candidat Touba na sëriñu daara yoo xamante ni dañ maa woo sànq ni ma dañ doon bëgg a ñëw taw bi téye leen moo tax ñëwuñu mais ñoom it dañoo bëgg président Abdoulaye Sylla mu posé candidat ñoom ñoo ma ko yóbbante ki tax sax ñu gën a mën a wuy wuy woote bi mooy Abdoulaye Sylla ñun dañu nekk ay xale ñu gëm ni lépp lu am ci aduna rinsut ndaw moo koy liggéey te ñun dañu gëm ni suñu avenir yëpp dañ ko war a liggéey suñu gisee nit boo xam ne àddunaam bépp daf ko liggéey àddunaam bépp daf ko liggéey woonu ci li wooñu dañ koy wuyu parce que bu dul dara expérience nañu dimbali suñu bopp mais ñu dimbali suñu réew Sénégal dëkk bu ndaw la dëkk bu yomba a defar la mais dañu am problème mu njiit man damay politique mais gisuma njiit gisuma njit bon pourquoi pas ñun waru ñu am courage sax encouragé Ablaye sila imposé ko lutax suma ko waxee waxuma ko pour neexal ñi fi tok dama ne nit ko xam ne àddunaam yépp daf ko liggéey nit ko xam ne àddunaam yépp daf ko liggéey sooy tànn njiit pour Sénégal fi mu toll nañu tànn kat man loolu laa gëm

Euh, suñu rak wala suñu jigéen yoo xam ne ay handicapé lañu te dañ leen di faral di fàtte ñenn ñi ay handicap moteur ñenn ay handicap xel ñu bokk ci société bi te du yoon ñu ñu leen di bàyyi au bord de la route. ñu par exemple président Abdoulaye Sylla seetlu ñaar déjà biir ECOTRA ci laabiram naturellement ñi fa daan déposé yëpp am ay handicap da daan insister ne nañ leen jël ba pare adapté fi ñuy liggéey moom ci réew yi muy dem mu gis tamit ne dafa am réew yoo xam ne pour jàppale handicapé yi dañuy imposer entreprise yi boo amee téeméeri employé ñu ne la da nga ci jël lu mu mat fukk wala juróom-benn yoo xam ne ay handicapé la ñu doon boo ko deful loi bi daan la maanaam amuloo choix bi comme ci groupement femmes yi ngeen am benn groupement boo xam ne dix nit ñoo fa nekk lu mu néew néew néew war ngeen am benn wala ñaari handicapé boo xam ne yéen koy wër utoo ko seen bopp ñëw taf ko seen wet jàngal ko métier laa ak moom adapter ko coup de de sorte que handicapé du ñu leen au bord de la route loolu dafa bokk tamit ci li nga xam ne ci secteur privé bi euh, président Abdoulaye Sylla dafa bëgg ñu porter ko ba assemblée mu nekk loi boo xam ne suñu mbokk handicapé handicap bu mu mënti doon boo amee compétence wala boo amee euh, xarañtewu liggéey ñu def de sorte que boo ñëwee euh, jooytu ko biir C50 bi ñu xool ci société C50 bi macha allah kan moo la kan moo la mën a mën accueillir. waaye li ma bëgg daal ñu xam ko muy Abdoulaye silla moom ci boppam ci Abdoulaye Sylla lañ la bëgg a yóbbante na nga ko wax ne na posé candidat ñun waa Touba moom la ñu àndal ñun waa Mbakke moom la ñu àndal te nag lii nu la yóbbante boo ko waxul Abdoulaye Sylla bu bu posé wul candidat danañ ko pelante nag waaw ah, Abdoulaye Sylla nee ko bu posé wul candidat danañ ko porte pelante ñun waa Touba ak ñun waa Mbakke ndax nag dañoo defal teraanga te teraanga jëm ñu defal kat mënuñ ko koo fay lenn lu nag jël suñu carte nag daan koy woteel Abdoulaye Sylla na posé candidat ñun waa Touba ñun waa Mbacké moom la ñu àndal bu posé wul candidat danañ ko planté incha allahu rabbi